asalaamaaleykum ami internet Thiès Info ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax yéen ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen jaajëfal waaye tam di kontaan ci yéen di bëgg rek bu baax a baax ci confiance ak qualité gi ngeen am ci ñun tey nag seen mbokk seen xarit Fall Damel am gan ah di dalal ki nga xam ne mooy Serigne Saliou sàmb moom Serigne Béthio Thioune universel Serigne Saliou sàmb kenn dootu ko présenté ci miim réew bala noo def leen rek duñu def leen lu dul bàyyi moom universel Serigne Saliou Samb mu daal di nuyoog askanu sunu axansanil baaxi min asheytaani xinda mamarriya wa fil awtaani xibaadati btadaxtu bismillahi wa huwa kafaaniya zawil malaahi wajjahtu kulla alhamdi wa shukuuri lil maaliki rahmaani wa shakuuri salli wa sallim wal sarmada xalallasi sammaytahu muhammada wa alihi wa sahbihi wal anbiya waskurtihi almuqaddamaati rabbiya kulla laxsatin wa tarfa min bahri nuurikal di xarfa mbokk jullit di mbokk taalibe yi mboolem ñuy topp Thiès Thiès noo ngi leen di nuyu te di leen siyaare di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. noo ngi jiital nag ci sunu nuyoo Serigne Touba Cheikh Mamadul taxa di ko ñaanal mu yàgg fi lool tànd ko wér yeggale ay naalam ba naalaat yeneen yeggale ko waaye ñoo ngi koy ñaanal it Serigne Cheikh Ahmadou Mbackeem Serigne yàlla na fi yàgg te wér ak mbooleem njabootuk Serigne Saliou gi ak njabootuk Serigne Touba gi Fall mel noo ngi yeesalaat nag sun buumuk jaayante ci Serigne Béthio Thioune te di ko santaat bu baax ci ndimbalam ak tawféexam ci nun Fall maa ngi lay nuyu bu baax tey nuyu mbooleem 15 info ak équipe technique bi ci liggéey yëpp te di la ñaanal jàmm jërëjëf googu la jàmm ni nga ko waxee yàlla nañ ko bokk ñun ñëpp wax dëgg yàlla bég bu baax a baax waaye itam kontaan ci yow ci sa oyof teef ak itam ci nangu gi nga xam ne nangu nga ko ñëw ñu tey euh, séq ak waa Thiès Info bi euh, waxtaan tey ji nag ñu bëgg waxtaanee koo xamante ni mën naa ni ñëpp ko xam ci askan sunu gaal ak li ko wër muy maam Cheikh Ibrahima Fall ku ko xam-xam ko ci li nga xam ni noonu la toppe woon Serigne Touba Khadim Rasoul waaye nag euh, maam Cheikh Ibrahima Fall ci ay turam ci daan dégg léegoo leeg ñu koy woo ba tey jii nag abori jaal googu yi la bëgg askanu sunu gaal gi yëpp am na ci ñooñ ñoo xamante ne xëy na xamuñu sax lan lay tekki waaye tey jii daal dina leen nañ ak sëriñ Saliou sàmb Serigne Saliou Samb tey jii boo ñu doon wax lan mooy abori jaal loo ñuy wax. ah jërëjëf Fall Damel yéen de maa ngi leen di sant bu baax ñaari sant ah, cant gu njëkk gi mooy. dalal gi ngeen nu dalal ngir nu waxtaane lu jëm ci maam Cheikh Ibrahima Fall ndax Fall Damel Cheikh Ibrahima Fall ak xasaayid yi arabisan du ko waxtaane li arabisan yi baax baax du ko waxtaane islamologue it du ko waxtaane ak li muy baax baax ñaar yooyu am murite ko mën a waxtaane te ku la gën a murite gën laa saarixe moo lay gën a dégg Cheikh Ibrahima Fall waaye moo lay gën a dégg xasaayid yi te ñun suñ yitte jëpp suñ xin memteef mooy dooni murit dooni saadix kon su ngeen amee thème bu jëm ki Cheikh Ibra seen xel dem ci nun la ngeen nu rafet njort suñ diggante ak Sëñ Tuubaa na ci jaare def nu ay taalibe yu dëggal ndax dooni dongaam yu ko yu mu nangu rek leen bëgg geneen cant gi nag mooy li ngeen tànn benn thème ki Cheikh Ibra bu ko mat muy abóori jàll gis nga Fall Dameel Cheikh Ibra daa ëpp ñu koy anguro li ñuy tuddee mbëmbëstal di ko di ko di ko di ko di ko wooyee globalisé Cheikh Ibra da ko ëpp maam Cheikh Ibra nga bëgg ko waxtaanandoo ci Cheikh Ibra baabul muridiina ja abori jaalullaahi ji làmp faal ji ngërëm li ko Sëñ Tuubaa gërëm ak ay jaar-jaaram yépp nga defandoo ko ci benn jotaay Cheikh Ibra daa ëpp loolu nii ngeen def lan war a def Cheikh Ibra tey baabul muridiina nu waxtaane ko ne mooy lan suba nu waxtaane abori jaalullaahi mooy lan ëllëg ñu waxtaane lan mooy làmp faal lu muy tekki ëllëg ñu waxtaane jaaraama maam Cheikh Ibrahima lan lay firi li tax sin Fall ne bu du woon a moom naat gi raw loolooy lan Cheikh Ibrahima yoon wi bàmbaay dëkk bi lu muy tekki nga xam ni lu ne te mu boppam la war a doon ndax Cheikh Ibra li yàlla am yónnante bi am ko Sëriñ Tuubaa ku ki am ko loolu yi la ko ko baax ki defal mooy ñoom dañoo am ay tur tur yi wuute te tur wu ne am lu muy firi ci ñoom yàlla daa am ismu saat turu allahu am ismu sifaat am ismul afaal xam nga alkarimu bokkut ak arrasaaxu lu muy firi ak lu nuy dox almannaanu bokkut ak alxudduusu alxudduusu bokkut ak alxallaaxu alxaalixu la muy tekki ak arrasaaxu la muy tekki du benn muy tur yu bari kon boo demee ci yonent bi alayhi salaam al Mustapha bokkut ak annabiyu annabiyu bokkut ak arrasulu la muttabaa di dox bokkut ak la muxtaar di dox bokkut la Mustapha di dox kon leen lu ci rek daam tekki boppam niki noonu ku tedd ki it Ahmadou Bamba bokkut ak Abdul Xadim Abdul Xadim bokkut ak Ahmadou Ahmadou it bokkut ak ku tedd ki machiatullahi nga xam ne loo ca ne daa am lu may dox am lu mu doon Cheikh Ibrahima Fall nag Sidi Ibrahima noonu la mel Abu Rijaalullahi bokkut ak Babu Muridina loola bokkut ak Lamp Fall bokkut ak nangam nangam comme bu ngeen xamee loolu yéen ba na Abu Rijaalullahi lool loola laa kontaan man loolu laa bég Fall Damel bu may tontu ci sa question bi nag mooy lan mooy aboo rijaalullaahi nga xam ni benn tur la ci tur yu maam Cheikh Ibrahima Fall yi eh, ni ma ko njëkk a tekkee mooy ñaari baat la ñaari baat muy baatub aboo ak rijaal moom lañ boole muy aboo rijaal ñaari baat yooyu nag nam ci arab bokkut ak tekkiinam fii ci Cheikh Ibra nin koy firee ci Cheikh Ibra ak taxawaay bi mu fi am bokkut ak li muy tekki rek ci arab kon dama koy njëkk a tekki ci arab aboo moom ci arab bàyyi lay firi bàyyi mooy père mooy bàyyi ci geño loolu nag alxuraan andi na ko lu bari jàng nañu wa abuna shaykhun kabir ke Seydina Sohaybu ak doomam yu jigéen ya ak Muusa sunu baay kat góor gu mage la jàng nañ inna lahu abban shaykhan kabira ke Seydina Yuusufa ak rakk ya ñun daa moom de am na baay waaye baay ba mag la jàng nañ wakaana abuhuma saalihan ke Seydina Xadir ak muusa ñoom ñaar ñii kat seen baay ku baax la niki noonu it yow ma yafirul mar'u min aqihi wa ummihi wa abihi alxuraan nee bis penci am na rakk ki mag yi dawante waaye am na baay ak doom yi dawante ak nday ak doom foofa baatu baay andi ko ci abihi kon abo mooy fiiri baay rek bu dee arijaal nag mooy firi ay góor yu ëpp ñett waaw ndax jamxu la pluriel bu fekkee noonu lañ koy waxee arab mbir bu matagul ñett du ko def jamxu su fekkee benn rek la mufrat lay tudd waaye su fekkee ñaar la tasniya lay tudd bu ëppee ñett jëm kaw nag ci lay doog a tudd jamxu muy lu bari yëpp nag xam nañ ko ci alxuraan rajulu jamxoom mooy rijaalu rajulun nag mooy firi genn góor gis nga wajaa rajulum min aqsal madinati yasha xaala ya muusa innal malaa yahtamiruuna bika li yaqtuluuka gis nga wajaa rajulun min aqsal madinati xaala ya qawmi tabihol mursalin mooy jenn waay ñëw na ne muusa nangam bu mooy benn góor kon tasniye bi it day ñëw bu doon ñaari góor la du doon gun rijaal dañ koy def tasniye kon moo tax nga dégg xaala rajulaani min allasina na anhamallah alxuraan di wax ni ñaari góor wax nan ni da nga ko dégg it ci lu mel ni fa in lam yakuna rajulayni wadrib lahum masalan rajulayni rajulayni nag ak ni benn la waaye tas ni yelisim ci grammaire alif lay rafaaye yaa lay nasabe yaa lay kasraa rajulaani faahin la taxawee moo tax alif gi mooy mandargam nasab mi boo demee ci fa in lam yakuna rajulayni nag maf'ulun bihi la moo ko wadrib lahum masalan ni dañoo taxaw taxawaayu nasab moo tax yaa gi mooy mandargam nasab mi niki noonu bu doon kasara it yaala yaa gi rek mooy ñëwaat wa minhum yam si ala rijlayni ala harfu jarrin la rijlayni majruur la ci garameer waaye yaa gi mooy mandargam jar gi kon ñaari góor waaye fan lay doone rijaal mooy su ëppee ñaar ñetti jëm kaw alxuraan ne ar rijaalu xawwaamuuna ala nisaa yi dégg nga ko rijaal yi yi wali na dara darajatun kon rijaal mooy firi ay góor yu ëpp ñett léegi soo boolee baay muy aboo ak rijaal lu muy firi baay góor ñi loolu nag boo ko firi doo dégg wax ji moo tax la arab du ko firi li tax doo dégg wax ji mooy Seex Ibra du bàyyi góor ñëpp ci saaxir ndax jurut góor ñëpp xanaa kay ñam jur ci ay góor la doon seen baay ci nin xamee baay kon du bàyyi ñëpp kon boo nee aboo rijaal gii ma des na la cee jam ci baati araab yi rek kon baatu araab bi nii la ciy firi ba bi dellu si ma indil la ko ci maxnaam yi jërëjëf mbokk yi ba tey yéen a ngi ci Thiès Info ah ba wax dëgg yàlla euh, ni ñu déggagul dal na xel waaye itam ni ñu déggagul leer na nañ ci li nga xam ni mooy lan lay tekk ci arab waaye ginnaaw ci arab ci ay kàddoom dañ cee dégg mu wax ni kat am na noo xamante ni noonu lay firee ko fa maam Cheikh Ibrahima Fall léegi nag ci maanaam bi foofee lan bëgg itam nga leeralal ñu ko bañ xam lan moo tax ñuy wooyee noonu maam Cheikh Ibrahima Fall. waaw kay jërëjëf Fall Damel léegi nag ci mustalaha bi fii nii nga laaj muy Cheikh Ibrahima Fall Abou Rijal fii nag nu muy ci Abou Rijal wàllu xam-xamu yàlla muy mahrifa tasawuf xaqiqa day am ay baat yu ñuy jëfandikoo danañ xaw a nag nuróole sax jëfandikoo gi ak baatab arab bi rek xam nga bàyyi ci kër mooy kilifa kër gi mooy joxe ordu yi mooy joxe ndigal li moo yor kàddu gi lu mu wax la ñuy def lu ne moom lañ ciy diglu kon mooy doxal lépp léegi nag kilifteef googu moom la xaqiiqa jël rijaal góor yi lay firi waaye fii nag dafay firi góor yàlla ya ñu ni góor yàlla ya ci jëmi boppam mooy ñi nga xam ne yàlla da leen a dugal ci administration bi jox leen ay tomb nome leen ñu am ay garaat ci mbirum yàlla mboolem góor yooyu yëpp Cheikh Ibra mooy seen abóori jaal maanaam mooy kilifa ga mooy joxe ordre ya moo joxe ndigal ya moom la ñëpp yi diglu da ngay dégg moo tax ngay dégg baatu jëkkër yi góor ñi xam nga jëkkër baaya koy doon ndey mooy doom soxna da ngay dégg foofa nag góor yàlla yàlla nuy wax léegi nag foofa dama la koy njëkk a leeral tasawuf dañuy jëfandikoo aboo muy bàyyi ci kilifa ga di jëfandikoo ummu muy nday gis nga Cheikh Ibra Fall léppam da ciy jàngale ak taalube jàngale gi mu jàngale ak taalube daa tax xam nga lu tax mu jël aboo te bàyyi fi ummu ci xam-xamu tasawuf nday moo ëpp doole bàyyi te moom la Sëñ Tubaa la ëpp doole da koy bàyyi ak Sëñ Tubaa daal di jël la ca topp moo day daan na sëñ bi du tolloog moom du ko sës yonent bi daa am ko ñëw ni ko aqi way jur diggante baay ak doom kan laa war a gën a fonk yonent bi ne ko ummuka sa ndey mu ne ko teg ca kan mu ne waat ko ummuka mu ko teg ca mu ne ko ummuka kon danga nga fonk sa ndey ñetti yoon doo koo wax abika kon ndekete ndey ci ay àqam ëpp na baay ñetti daraja ci tasawuf itam dañuy jëfandikoo ummu ummu mooy ndey gis nga li baay abu rijal bala ma ciy ñëw li baay di réer dama laa bëgg wax ne la Seex Ibra léppam da ciy sidd ak taalib bi ak taalib bi rek lay jàngale ummu muy ndey ji sëñ Tuubaa da koo tippoo tippoo gi sëñ Tuubaa tippoo ummul rijaal yi ummul kulli moo tax Seex Ibra daan na ko jël ba ca topp moom sëñ Tuubaa boo demee ci Majmuhatul Mubaaraka bi muy misaal murid yi seen diggante moom dafa misaale boppam ndey misaale murid yi doom yi nga xam ni ñoo toll ci nàmp ki seen ndey wax la mu Sëñ Tuubaa wax na ummakum laa yaf naa labanuha ni ngeen xam yéen murid yi ne seen ndey jii boppam la wax kat am soowam du jeex soow mi nag mi ngi ci juble leerug yàlla gi leerug yàlla gi mu indi ca àddina di ci nàmpal ñépp ci yàlla ni ngeen xam ni du yëngu du jeex du xaaj ñëpp mën nanoo màndi ci yàlla te leer goo danaan guuj Sëriñ Tuubaa wax de dan ni wa kullu wa kullu wa kullu man radiha minha kaana qawiyan wa xaaqilan képp ko namte ki seen nday ji dana dëgër dana xellu dëgër gi mi ngi ki jublu dana am yàlla ndax inna allah huwa rasaaq sul quwatin matin jaata xellu gi mi ngi ki jublu te dana ko jariñoo mooy dana am yàlla te dana ko jariñoo mu teg ne fam ku suu hinda ummahatikum xatta balaxtum ajalal fitaami Sëriñ Tuubaa wax de sax ki seen nday ji ba keroog ñiin di mat a fer ndax liir kat li feeg feragul weenu ndeyam a ko jig ga nag buñ ki jublu ba keroog mu leen di marole ak yàlla ba yóbbu leen ci yàqu gu defaru gu yàqu dutul topp Sëñ Tuubaa ko man loolu yaa ngi dégg kon gis nga borom Tuubaa dafa misaale boppam day gis nga ndeyi jamono jamono jépp kenn duuti fi nàmp mbirum yàlla te du sëriñ bi la ko nàmpal Sëñ Tuubaa leeruk Sëñ Tuubaa ci la ñëpp yi nàmp loolu nag moo ko waxal sax boppam ba muy tëj jës bu dani bi ka sa altu maaliki kawniya nuura saaliki wasin gisaa bin naasiki bi man jalaawul mu xam yi sëñ Tuubaa nee na ñett fi ne naasiki mooy kiy wut yàlla te di ko wute ci yoonu sariha jàkka jeeg kurus geeg téere yi saaliki mooy kiy wut yàlla te soobu yoonu tasawuf muy xaqiiqa euh, majj sóob nag mooy ki yàlla xëccal boppam nga xam ne wutante wut sëñ Tuubaa nee na ñetti ñii ñépp ku ci mus leerug yàlla ci sama ween wii nga ko nàmpe ci lu nëbb ak ci lu feeñ comme mooy ndeyi jamono loola waral mu waxal boppam ni lii jaada bilmaahil basiiri naasiri wa bii yu niiru kalkalal muhaasiri man ahmadul xadim mii ku ma jamonoonteel mooy jamono jam feeña ba keroog àddunay tukki képp ku naan ci leerug yàlla ci man mii nga ko naane dama laa bëgg a xam ni mu doonee ndey gi loolu nag ma expliqué la ko nag ci ci nga dégg ko xam nga Sëñ Tuubaa nu mel li tax mu ni fu waaye naane leeru yàlla man la soo ko xamee soo xamut gis nga courant daa am lu ñu ciy wooye haute tension am lu ñuy wax moyentation am lu ñuy wax basse tension ñetti étape haute ba mooy sëñ bi mooy fa courant ba sosoo foofa nag doole ja daa rëy rëy goo xam ni képp kuñ ci kuñ ci branche le woon sa kër day day day explosé moom da kër ga day to day tàkk ndax attanu ko loola xam nga ku ko mën a jël moyentation mooy poste courant yaa ko attan fiil yu mag ya ñooña lay mën a jox ndax ñooña seeni ampère moo mën a dëkkandiku loolu moyentation bu jëlee moom mooy indil poste yi ci dëkk yi poste yooyu jox pot lamp yi pot yi jox contouru kër yi contouru kër yi jox piris yi piris yi jox ranons yi renonce bi jox téléphone yeeg télé yeeg yu ni mel xoolal renonce bi télé bi ci renonce bi la yëgee courant bi yaa ngi dégg renonce bi yëgee ko ci prise bi prise bi yëgee ko ci ci ci ci ci contour bi contour bi yëgee ko ci porte lampe porte lampe yëgee ko ca poste ya waaye ndekk lépp otation la ahmadul ma ngoog waaw waaw lépp mooma ku ne ak fa nga ko jëlee loolu nag mooy nday ji ah ndey ji mu doon Cheikh Ibra Fall nag li tax mu mën a doon abo abo gis nga otation boobu moom rek mooy régulateur bi nga xam ni moo am ampère bi àttan loolu man ko faa jële ni guut te du lakk du yëngu yaa ngi dégg di ko mën a séddale ku ne mu jox la ce langa nga ca yellool te ñëpp ay séddu moo dama daa wax naan doom ku am na ma sant waaye doom ku ñàkk nag ma xalab ndax lépp mën a li tax mu naan doom mooy aboo gi sa waay loo koy wax baay waaye lu lay wax doom Cheikh Ibrahima mooy baay ñëpp waaye nag baay gi mooy kilifteef gi laa lay wax mooy abooga nga ngi dégg kon léegi fii fi nga koy déggee ci aboo gi doo ko dégg ci baatinu araab bi mooy kilifteef gi mooy kudul Serigne tubaa rek moo la ëpp Cheikh Ibra loolu dina leer nag ci waxtaan wi kudul Serigne Touba Cheikh Ibra la ëpp yaa ngi dégg léegi kon aboo gi mooy kilifteef gi ni bàyyi doone kilifa ci kër gi Cheikh Ibra noonu la doone kilifa ci guur yàlla ya kon aboo fii fii kilifteef lay firi waaye rijaal fii lim fi firi mooy guur yàlla yi mooy guur yàlla yi nga xam ni yàlla moo leen jox ay tomb ci moom ñoom nag tolloo ndax góor yàlla yi na nga xam ne faal dammeel ñetti xaaj lañu rijaalullaahi daa am lu ñuy wax rijaalullaahi fi sarixati am lu ñuy wax rijaalullaahi fil xaqiqati am lu ñuy wax rijaalullaahi fil maarifati ñetti la dana leen wooye rijaalullaahi fi saahiri wa rijaalullaahi fil baatini wa rijaalullaahi fi baatinil baatini ah danañ leen woola it rijaalullahi an fi naasikiina waaye rijaalullahi assaalikiina ak rijaalullahi almajsoobiina ñett tur yëpp benn la ñett yooyu nag fas naa la ko yéenee leeral ba mu leer ñoom ñooñee ñëpp nag Cheikh Ibrahima Fall seen abu rijaalullahi fas naa la ko yéenee leeral nag ba mu leer ci alxuraan ci sunna ci waxi sëriñ bi ndax weddi gi daa bari Fall da mel te man Saliou ba ñu ma ko ma weddi en tant que Saliou Samb xëy na nga am loola neexul ci ban nga weddi ko waaye xam nga lu ma nangu. ku ma wedd ci xam-xam loolu nag moo tax sëñ Tuubaa dinaa ci gëm lu ma xamul waaye duma ci wax lu ma mënta yàlla bu kàddu gi dellu see ñetti rijaal yii dinaa la ko leeralal ci alxuraan ba noppi xamal la ni siidi biraay yi mooy ëboo rijaalul ñoom ñëpp fal da askanu sunu gaal ñu ko déggandoo ni mu ko waxee ah doon loo xamante ne lu leer naññ la ni ko ni mu ko définir ah vraiment leer na naññ ñëpp ji jii euh, ràññeewaat nañ xamaat nañ bu baax a baax a baax rijaalulaahi mooy lan waaye ni mu ko waxee rek duñ def leen lu dul jàll ci étape boobu mu wax ñu ñetti étape yi nga xamante ne am na bu ci nekk ci yooyu lan lay tekki ak bu ci nekk ci yooyu naka lay demee naka la ko nit ñi di xamee kon euh, sëñ Sall Samb euh, kàddu gaa ngi noonu kon nag Fall demee dama lay njëkk a wax rijaalulaahi fi sarihati mooy lan waaw mooy góor yàlla yi nga xam ni dañ leen a natte ci balaasu sariya maa ne sariya moo d'accord ci ne ñii ay góor yàlla lañu mën nga ko tuddee rijaalulaay fi sariyaati mën nga ko tuddee rijaalulaay fi saahiri mooy ci nattukaay bu feeñ ndax sariya mooy saahir ndax mooy loi lu ñëpp xam nga di ko def ñu mën di ko atte ndax du mbirum baatin bu dee fi sariyaati ñan ñooy rijaalulaay ya bu dee man nga ko tudde yi rijaalu fi fi saahiri danañ ko tudde it annaasikiin waa ñooñu ñooy ñan ñi ñi guur yàlla yi nattoo ci sariya te Cheikh Ibrahima seen aboo rijaal da ngay dem ci suuratu suuratu nuur ci alxuraan aaya 36 37 da ngay xam ñan ñooy rijaalu lay fi sarihati alxuraan ay wax dane rijaalun laa tulhiihim tijaaratun wala bayhun han zikrillah wa iqaami salaati wa itaai zakati yaqaafuuna yowman tataqallabu fiihi alquluubu wala busaar lu tax mu ne li yajziyahum llahu ahsana ma hamilu wa yasidahum min fadlihi wallahu yarsuqu man yashaau bi xeyri hisaab suñ borom nee na ay góor a ngi nii yàlla nag jum ne ay góor a ngi nii góor ñàngoog yoo xam ni duñ topp mukk jaayante meeg jëndante meeg jaxasoom adduna mi ba mu fàtte loo leen yàlla góor yooyu njaxasam àdduna mi duñ ci nekk mukk ba mu fàtte loo leen jaamu yàlla daan ne lu mel ni julli ak joxe asaka lu tax ñoom waxtu wu nekk dañuy teewlu ne bis ngi ñëw te yàlla dana dajale jëmm yépp ak seeni ruu ak seeni xol àtte seen mbir moo ñii lan moo tax yàlla nag ni muy defee nii rek kenn ku ci nekk li tax tolluwul maqaama ñii ñooy premiere mooy ñi gën a suufe ñi ki digg bi ña ca kaw suufe gi nag bu ko jàppee ak suufee déedéet lee rek wax ngi dégg deuxième aaya bi moo leen di définir ci lan moo tax ñoom rijaalul xaqiqati raw leen deuxième aaya bi moo koy niir mooy li yegg si law ahsana ma hamilu ñoom kat li tax duñ fàtte yàlla duñ fàtte jaamu yàlla mooy dañuy xaar ëllëg yàlla fay leen seen jëf ji te fayee leen ko nam gën a rafete kon ñu ngi xaar payoorug yàlla ñoom te dolli leen ci ngëneelam ba mën leen a yërëm dugal leen àjjana ndax fa ama allatina amanu wa amilu salihati fa yudxiluhum rabbuhum fii rahmatihi dalika huwa alfawsul mubin ñoom kat xam na ne yàllaay wërsëgale àjjana ku ko soob loola nag ñu yaakaar bëgg ko moo tax duñ topp mbirum àddina ba mu fàtteloo leen yàlla ak jaamu yàlla daane ñooñu ay góor lañu góor yooya nag kon ci ci ci balaasu sariha lañ ñu nattee ñooñu it duma ci sori ndax damaa bëgg waxtaan yow ca kaw mooy aboori jàllulaay mooy bàyyi góor ña ca ca kaw xam nga kaman kaman kaman kalaman moo la man na bu fekkee ñi ki suuf ñi ki digg bi leen man ñi ci digg ña ca kaw a leen man ña ca kaw bu Cheikh Ibra doone seen abo waxaale wu ma ñii daa ngi dégg moo tax yii duma ci taxaw bu baax ndax man ma ne milliard buñ la ko laa laajool nga naan mën naa jënd caaf xam nga loolu yàqi wax la ñëpp xam na ne milliard mën naa jënd caaf waaye da wàññi valeur bi ndax mënoon ngaa wax yeneen yu milliard man nag yu bokkut ak caaf yaa ngi dégg loolu loolu loolu laa bañ mu dal ma waaye nag daal jox benn exemple ci nga xam ni Cheikh Ibrahima abo rijaalu rijaalu shariati maam Cheikh Ibra moom rek moo mës a jëfandikoo àqi sariha ba boppam moom laa ko gisee Baay Ibrahima Thiam Cheikh Ibra ko yar Baay Ibrahima Thiam moo nittali ne Cheikh Ibra mas naa am ay gan toog ak gan ñi di waxtaan ak ñoom di leen teral ba yàgg mu ni bérit bëgg a jug toogaat nees tuuti ñu gis ko mu ñàkk tooy xib ba yëre yu tooy mu toog rek ba gànna yeewi ko ba dem mu dugg ci biir ba Ibrahima Thiam nee na daal di woolu fere yi summi mum mi neen xoolal leen li ci nekk ñu xool ko muy jiit fere yi mooy mag ña mooy taalibeem yi ñu xoolal ko mum fëgg ko jiit wadd jiit bi jiit ji waddee ñu ko ah faal lii lu mu mu ni bi ma toogee ci jotaay bi daf ma doon fet looloo waroon sama béréb ja bi ma demee bay jug nag sama xel dem ci addisu yonent bi mu ni man kaana yuminu billahi wal yawmil axiri fal yukrim dayfahu ku gëm yàlla ak bis a na nga teral sa gan ma xam ni bokkul ci teraaga am ay gan di leen fa bàyyi ma faf toog nga xam ne mi ngi dëkkandiku jiit di di ko fett sañu ta jóg ngir ngir sàmm ab addis ko kooku mooy rijaalu lay yaa ngi dégg njëkk muy ñëw ki Sëñ Tuubaa daana naafile kaamil bi ñaar rakka taxaw tari téere kaw bi taxawaat tari téere suuf bi moom Cheikh Ibra joxe nag moom li tax nga xam Cheikh Ibra ëbóori jàllu ñii dafa laajoon ne doom asaka ni ngeen koy joxe ñu ko ah fiq kat dani boo amee fukk tammat asaka da ngay génne benn ba téye juróom-ñeent mu ne ah doom ah fiq moom nay na di ko toll ni yàlla ngay séddoog moom di ko ëppale xoola fa mu déggee daa ne man du def loolu damay jël sama lépp jox sin bamba xam nga kon kooku itaawu sakkat yi kooku ay aburi jàllul lay ñooñu yaa ngi dégg moo tax boo ko toppee woon noonu te boo demoon ci gës bul murit ni muy jàngalee sariha Cheikh Ibra du bu jàngale julli du xëy rek ne la farata yi fukk ak juróom la yéene la kàbbaru almal déedéet jëmmi yéene rek dana ci taxaw ay xët di ko settantal di ko tafsir naan la yéene nag nii ci ngay xam ne moo gën a dégg ñépp lislaam njëkk mu gis Sëñ Tuubaa kon foofu dama fa sore kon rijal la yu njëkk yi mooy rijalun fi sarihati ñooñu moom Cheikh Ibrahima seen abo rijal moom ndax ca kaw laa bëgg a kon ñu dem ci deuxième bi mooy rijalun fi l yàlla yi nga xam ni balaasu aqiqa moo leen natt aqiqa aqiqa mooy xam-xam bi bët dul gis te muy dëgg xam-xam bi bët dul gis ta muy dëgg ku jàng diggante Seydina Xadir ak Seydina Moussa ci alxuraan da nga ko xam ndax waxallamnaahu min ladunaa xilman ja ak rahmatan min hindina waxallamnaahu min ladunaa xilman lam doon def lépp Moussa mënu caa xam dara moo tax mu xëy ne ko ha saa firaaxu bayni wa baynika waaye sa unabbi uka bi taawili maa lam tastati alayhi sabra maa lam tastati alayhi sabra ba muy daaneel dani ko rahmatan min hindina waxallamnaahu min ladunaa hilma moo ko firi mooy xam-xam bi nga xam ni dëgg la te bët du ko gis li feeg leeralul la ko ndax suñu boroom mooy xamal ko ko soob lu ko soob loolu may aqiqa aqiqa nag balance bi mu natte ay góor yàllaam moom bokkut ak balance bi bi sariixa natte demal ca suuratul ahsaab ahsaab ahsaab aaya 23 24 da nga xam rijalun fil xaqiqat ñooy ñan alquran dani minal muminina rijalun sadaxu maa hahadullaha alayhi fa minhum man xada naxbahu wa minhum may yantasiru wa ma badalu tabdila ñoom it li li yegg laam googu chaque jour mooy définir ndax laamuk taxlil la moo ñëwoon fee li yegg si yahumullahu waaye moo ñëwaat fii ci li yegg si yàlla laamuk taxliil mooy lan ndax laam daa bari att ci arab laamuk taxliil laamuk juhuut laamuk xasmu laamuk tawkiid laamu jarlin laam laam laam ëpp na fukki fukki atte ñett ci grammaire u arab gii laam nag mooy laamuk taxliil taxliil xam nga mooy lan mooy illa ji kii kat daa def nangam waaye lii ko ko tax a def yaa ngi dégg mooy intention kon ci tubaab sun borom ni minal mu'miniina rijaalun sadaqu maa aahadu llaaha alayhi fa minhum man qadaa nahbahu wa minhum man yantasiru wa ma baddalu tabdila lu tax li yegsi allahu saadiqina bi siddiqihim wa yuhasib almunafiqina in shaa aw yatuuba alayhimoo inna allaha kaana xafuran rahima suñ borom nee na nekk na ci biir jullit ñi ay góor ay góor gis nga góor yàlla ñëwati na kon baatub góor googu kilifa ya lay wax waaye du en tant que góor nii rek ci forme mooy ñu am tomb ci yàlla mooy li ma la firi loon léegi ay góor yoo xam ne dañoo dëggal liñ ko lërënteeg yàlla foofu nag boo ko bëggee dégg firim xaarifoone yi ngay jël tafsir ñaari xaaj la tafsirul xulama ak tafsirul xaarifin xaarifiina yi mooy ñi nga xam ne yàlla leen di xamal ci ak leeram ñoom ñi ngi xamee ci inta in tattaqullaah yajxal lakum furxaanan ñi ngi xamee ci wa taqullaah wa yaxal limukumullah ci anwaaru muhammad yee leeru yunti yàlla muhammad ci la ñuy xame Cheikh Ahmed Tidiane Qutbul Xawsu ca ñooña la Cheikh Abdou Khadir Jeylaani ca ñooña la Cheikh Abou Hasan Assasali ca ñooña la Cheikh Abdou Hab Sahraani ca ñooña la Muhyiddin Ibnu Harabil Atami ca ñooña la Abou Yasdul Bustami ca ñooña la ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñu dul ñooña Cheikh Ahmed Tidiane Qutbul Xawsu mi sëriñu Tidiane yépp nee na xaqiqatul muhammadiya ku ci naan lu mat soixante-dix leer aaya alxuraan boo tiimati mën nga koo firi soixante-dix firi yu bokkul seex a wax loolu daa seex du gone kenn moom yaa ngi dégg kon ñooñu nag fa ñuy firi alxuraan daa bukk teg ñi naanut ci leer yonent yàlla Muhammad lan ca naan ñoom ñooña moom li téere xam rek ci kaw rek lañuy xam loola sax baax na waaye bee da koo gën a xóot xaarifoon na yooyu bi ñu firi aaya bii dañ ni rijaalun te kat aaya bii da nga ciy dégg Cheikh Ibrahima ni ko aaya bi bàyyee la place ci ne mi ngi ñëw dañ ne ay minal mu'minina rijaalun ci biir jullit ñi ay góor a ngi ci yoo xam ne sadaqu alayhillah ahadu alayhillah dëggal nañ lan kóllëreente yàlla ñu ni kóllëre ga lan la nga dem ki seen tafsir ñu ni sadaqu ma ahadu alayhillah al ahdul awwal wal miisaaqu al fitri al awwal bi qawlihi alastu bi rabbikum qaalu ballaa shahidna an taqulu yawma alqiyamati inna kunna xanaa saa qaafiliin ñu ni mooy kóllëre gu jiitu ga ñu ni kañ la ñu ni du àddina ësal la woon ñu ni ësal ca kañ ñu ni keroog ba yàlla dajalee ruuya xool xoolal nee na keroog ba yàlla dajalee ruuya daani jàkkaarloog ruuya ne ne alastu bi rabbikum xanaa du ma seen borom ruu yëpp keroog dañ ni ko balaa aha kay donte dañ koy tontu par étape nag sëñ Tuubaa mi fekkee lu ne sax mag ñuy leeral te mañ moo xam nañ ko doon tontoo ak njëkk yu mel noonu xam nga siñ bi daa daa garaaw yaa ngi dégg waaye dañ ko waxoon balaa keroog fas nga kóllëre ñu ni nag ñoom ñoo ñee nag kóllëre bi ñu ñëwee ci àdduna alxuraan dani am ñu ko matal bi ni firi xanxadoo xale yi laa fa minu mën xadaa nax boo dañ ne saxaaba ya moom matal nañ ko ndax ñoom dem nañ ba udey bi yàlla gërëm leen muy laqad radiyallahu anil mu'minina yaa ngi am na ñoo xam ne nag dañuy nëganiku foofa nag Sëriñ Tuubaa nga fa waaye agsi guma fa yaa ngi dégg waaye waaye Ibn Arabi Atimi dani kóllëre googee matal ko la yàlla wax ni góor yaa ko man mu ni ñooña nag kóllëre gën séqanteeg yàlla dadul mbirum ay yool ak tiyaaba ak na kon groupe bu njëkk bi xam nga àjjana la ñuy xaar ak tiyaaba mooy ba ma la njëkkoon wax mooy rijaale fi sarixat del dellu ci wax ji groupe bi li tax ñu raw leen nag fii la dan ne léegi si yàllaawu saarixina bi siddiqihim ñoom lu tax ñuy matal kóllëre gi ñun dañoo bëgg yàlla fay leen seenug dëggal ñu ne seenug dëggal mooy lan mu ni bil wafaa i a ngi dégg wal wusuuli ilal xaq bi ixraaji ma fi istihdaadihim min al kamaali bi huduril anbiya nii la ko xaari yi firee dañ ne ñoom danoo bëgg a yegg ci yàlla ñoom ndax balla man ahsana man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbihi wala xufran alayhi wala yasanun ñu ne ñoom xen ma mun àjjana xen ma mun sawaara ndax barab booba yàlla na may seen borom foofu àjjana xew fa sawara xewu fa yàlla doo nga fa ne kon dëggal ko rek mooy am fa yàlla te am yàlla kon ñoom romb nañ ay àjjana ki sawara te ñere ay ku leen fay aw yiw la ñuy xaar dolli leen ci ngëneel lu leen dugal àjjana kon ay góor lañ waaye dañoo limité wu ñii nag moom ay yiw ak i àjjana ak yooyu xoolu na ko ña nga ca kaw mooy dañoo bëgg a yegg ki seen borom wal wusuulu ilal xaqi te loola ngërëmul yàlla tax nu yegg te ñoom ngërëm lan gis mooy ngërëm lu jóge ci yàlla ñoom foofu lan nattoo alxuraan nag nee na am na ñoo xam ne fii ci àddina fa sensé rek ñoom moom am na loolu waaw mooy saxaabatul kiraam mooy yow ma uhudin ña jébbalu woon ci inna la si ni yu bàyyi xoon aka innamaa yu bàyyi xoon la yeddule fu koy tabari ñëpp noonu lañ ko firee mooy gaa yi uhut ak gaa yi badar ñooy fa minhu man xadaa nax baxoo léegi nag ñan ñooy wa minhu man ñent siru alxuraan te ne am na ñoo xam ne moom ñoo ngi xaar waaye fasunoo yéenee fecc kóllëre gi ñu ne lu ñuy xaar tafsir kat yëpp xamul lu ñu wax dañ ne wa minhum yantasiruuna ahadul amrayni ashahada wa nasr diglul foofu ñaar la ñuy xaar ñaari ci mbir yi benn lañ ciy xaar mooy xare amaat ñu dem xare ñu ne waa bu xare yi jeexee nag xam nga ñun loolu suñ question la ndax ñun fekki wuñ yi xare yi moom jeex na ñu ne waa bu xare yi jeexee nag ñun ñu xaar ndimbalul yàlla lu leen gàttandu yaa ngi dégg ndeke foofa mi ngi mi ngi mi ngi wax sëñ Tuubaa ak Cheikh Ibra te ñëwagunu bi xare yi jeexee ba jeex sëñ Tuubaa ñëw daan ne bihi xaniinaa lil jinaan xan qaswatin wa xan hawaan bihi lana taaba zamaan maha xabulil xidami fal nahmadillaha xalaa najaatina mimman xalaa wa kulli sarrin musjala bil mustafa al muxaddami xare yi jeex na waaye nag am langa xam ne nga doon xare amoon nañ ko manees naa am ta doo xare ñu ne ko moom moo mbàkkee nay def mu ne luñ amoon ñu ne ñooñu da yàlla lañ am ñoo am ngërëmul yàlla lii nag Sëriñ Tuubaa ku njëkk wax ci kaw suuf lan minallaahi man mii maa jógee ca yàlla mooma ilallaahi te man mii maa jëm ca yàlla mooma ay na muridullahi ana ku bëgg yegg ca yàlla mooma jox ma sa bopp mu yóbbu la maa xam yoon wa maa fa mën a yeggalee yéen ñi doon xaar ndimbal ñu ne ko amu ah, ne ndimbal ñëw na ndax yàlla doo ko yor bi nasrillahi yansuru man yasha wa huwa al-xasiisu rahim yàlla mooma nag nee na ma ni leen hadiyatullahi almuhin saaqat li xayri allahin wala yow ma bii allahu yuhin man saa ahu wa fii xaddi nee na ma wax leen ne man ahmadul xadim maay ndimbalam li mu wàcc ci kaw suuf comme naratee dimbali tey ëllëg ci sama jëmm jii la lay dimbilee kon ñëw leen jox ma seen bopp xoolal kon Sëñ Tuubaa woote na yoonu yegg ci yàlla yaa ngi dégg ndax moo fa jógee dafa yóbboo Sëñ Tuubaa moomu nag li tax nga xam ne Cheikh Ibra Fall mooy aboori jàll ci deuxième boobu ba tey la ma ma firil la ko foofu Sëñ Tuubaa 1883 la woote yoon wi Mbàkke Kajoor la ko wootee bisub àjjuma la ko woote ñaar fukki fan la ak juróom-ñaar ci weeru koor alxamis da ko jiitu guddig leetu xadar la woon bi koy wootee dafa fekk mu doon tëral ab téere boo xam ne naxwu la grammaire ñii dañ ne alfiya ibnu malik la ñii ne sahaadatu tulaab la muy téere boppam ba bi mu koy tëral ba toll ci faaxil faahil mu ñu firee sujet mooy ki jëf ji foofu rek la daga nga tudde nit aji jëf ndax yàlla rek ki aji jëf ndax fa li maa yurid jee tax suñ tubaa nag taw itam du firee faahil mindeef mu ni faahilun waa ji ne ko faahilun taw itam mayu ko mu ni ko faaxil keneen doon na ko ku dul yàlla sin bi dugg ci biir ab diir ñëwaat ne ko faaxilun mu ni faaxilun mu ne waat bëri dugg ci biir ab diir ñëwaat ne ko faaxilun mu ni faaxilun mu ne waat bëri dugg ci biir rek fekk rasulullahi toog di ko xaar Sëñ Tuubaa nee na saa faxani rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yónni wax man directement jàbbet jàbbet moom rasulullahi léeg-léeg nga dégg ko naan yónni mi ni muy ñëwaate ma ne déet yow yaa ngi nettali baytil maqdis ne yonente yëpp yonente ba jiite na leen fa la anta imaamu rusul xat jaa annahum talaaxoo ko fil israil wal kullu xat sala maam aadama ba mu dee ca 1900 borga dërëm la woon noohi nag ñooñu comme ñoo mën a dekk fekk ko bayte maqdis mu mu jiite leen rasulullahi mi leen daraja kay fu mu a dem xanaa war na a dem nag yaa ngi dégg bi ne ko rabbi asaabaka bil himmati wala turabbihim bi darti faxat loolu sos wi Cheikh Ibrahima Abouri Diall si xool naa ku fi jàng indi woon wutul ku la jàngal ma taktal la ñu ma jàpp ne man nañ ko nga dem fa sin mat la mi nee na wax ja yees na yeesaay boo xam ni fa sahabal jullu wa baqiyal xullu ñu ëpp ca mbooloo moom moom dañoo jël seeni daal seet fun jaar ndax mosunoo dégg loolu léppum jàng moo tax dama lay bëgg a xamal leen sëñ tubaa moom li mu fi indi ci lu yees mooy li Seex Ibra nekk ak xasaayid yi lu dul loolu fi la ko fekkoon lii mu bind ci téere yi la téere yi waxoon dong la bindaat yokku ca wàññiwu ko da ko gën a leeral rek lim fi indi mooy Cheikh Ibra Faal ak xasaayitam yi loolu nañ ko xam ma mu wote yoon wi ku bëgg li ma bëgg topp ma jox ma sa bopp te mooy yegg ci yàlla ngoon googu ñetti njëbbal la Sëñ am ñett ak daaray Maamu Anta ci daaray Sénégal ñetti njëbbal la am Sëñ Adama Gueye Sëñ Masamba Diop Sam Cheikh Ibrahima Sarr keneen jëbbaluwul sin bee ko wax nag awalu man aamana bii wa bàyyi nga lii huwa Adama Gueye wa Masamba Diop Sam wa Ibrahima Sarr Njaañ ñett ñetti njëbbal waaye xam nga lu garaaw Cheikh Ibra fekkiwul bi ñu tas daara ci Sëñ Tuubaa li mu woote yees na mag ñi goree nanu ndax koo bokkal daara di jàng moom ba yàgg nga nangu mu raw la mu raw ba di la jàngal garaawul tooli alal ba ngeen daan séq mu xëy nag li ñuy wax ose ne la eh ku fi mu jàng indi daal wuti wuti ko indi naa la neen lépp mu jàng loolu daa garaaw ña goree jox ko seen bopp te xamagun loola lan la te mënu koo waxal boppam ñooñu ponkal lan ñooñu góor lan looloo tax ñooñu rijal lan ngor gin am toog nangoo diglu Sëriñ Tuubaa te moom li mu woote mënu ko wax na bàyyil sa bopp jàpp ma kenn dugg dul wax kenn yaa ngi dégg ndax koo tereem njàng ba noppi naan ko bàyyil sa bopp jàpp ma loolu daa garaaw da nga naan kii damaa bëgg exploité sin bi du ko mën a waxal boppam doonte sañ na ko te Ibra Faal fikk wu tasum daara ji at am na ko Sëriñ Tuubaa woote yoon wi at waaye baat bi ma lay wax li tax nga xam Cheikh Ibra mooy aboori jàllu ñooñu ku nekk Sëñ Tuubaa ñëpp a rëy Sëñ Tuubaa amul ku ndaw gaaña ponkal lanu rëy nanu waaye Seex Ibra Faal ku dul Sëñ Tuubaa moo ëpp loolu nangul ko ko mooy am cër ci Sëñ Tuubaa ah déet kaay la boo fotob Sëñ Tuubaa kooko mën a booleel di ko jaay ku dul Seex Ibra boo yàggee wër léegi nga dégg kon la kii kan la ak lu kooko baax baax waaye fotob Sëñ Tuubaa ak Seex Ibra moom kuy julli tak kuy murit tak ku dul murit tak yam ñëpp ay xam ni Seex Ibra ngi loolu du kompaloo du lu nu am na lu xew kon nga ngi dégg Eh, xoolal maam Cheikh Ibra uniquement dafa jug di wër Sëriñ Tuubaa xam nga am na wax ju Sëriñ Cheikh Ibra wax Sëriñ Musaa Ka bind ko war nañ koo gëm dañu diglul ma wax la waxi Cheikh Ibra Faal kon day nga xam ni mooy boroom aal daane Cheikh Ibra Faal noon na ma ruug gëm na Sayxu ba lu mat junni at wóor na yàlla buur ba te booba sàkk gunu maam aadama sàkkantuma ak di sàkk doomu aadama xam nga Cheikh Ibra dañ ne gi gëm na Sëriñ Tuubaa junni at mila te sàkkunu aadama waa waaw li lay xamal ne Cheikh Ibra moom xame woon naag Sëriñ Tuubaa bu yàgg mooy mennum Cheikh Ibra mos a jug di wër sin bi yaa ngi dégg waaye waaye dameel fal dameel daa am lu ci ne ndax ñi ki des ñëpp ni mu jébbaloo ñi dañ doon jaay xam-xam ñëw sin bi jommal leen yokk seen bopp ku mel ne sama maam sin jaas si sa di jaayub kaamilam ñetti dërëm ñëw Sëriñ Tuubaa jëndi ko ki sin Masamba Jóob saam ñetti téeméeri dërëm mu xam ni kii moom alxuraan mu far jébbalu yaa ngi dégg kenn ku nekk ak la jommale Cheikh Ibra nag jommi daa jug uniquement di wër kon xam-xam kam ki muy wër kon am na fa mu ko xamee yow mënoo war koo xamul a ah, man ngaa tëb tëb ni ma wër fekk xamuma ne li ngay xamee ne Cheikh Ibrahima xam na Sëñ Tuubaa xamoon na ko tey jii fal dem yàlla kuy wër kum xamul mën na koo jaawale lu tax Cheikh Ibrahima comme dem ne la niip ne du kii daal di jàll du kii moom ki nga koy wax xam nga ko déedéet xam nga gars yi ne nettali histoire nii rek xam nga du am at ko làmm ne du kii tey jii man fu ma dee wër ku ma xam. fekk Fall Damel laa bëgg a gis nga indi fi Laye Meng dama naan du kii nga indi fi Ablaye Fall ma ne déedéet ka may wër dukki boo indee Cheikh Sall ma ne du kii nga indi Boubacar Konaté man la du kii ndax damaa xam Fall Damel Cheikh Ibrahima Fall na bi mu wër Sëriñ Tuubaa kum dem ñu ni kooka Bàmba la tudd wala ab sëriñ la dalay laa mu ne du kii kon ki muy wër xam na ko <laughs> am déet kon kay lam ne roog a gëmoon na ko bu yàgg kon xamee ba yàggoon na yaa ngi dégg ñi ki des ñëpp nag fii dañ xamee maanaam Sëriñ Tuubaa sax am na ñoo ko xamee faneen waaye Cheikh Ibra loolu sax la neen la moo amut moroom Sidi Ibrahima xoolal Sëñ Tuubaa woote na yegg ci yàlla waaye xam nga Sëñ Tuubaa njëkk a wax ni maa jóge ca yàlla maa jëm ca yàlla ana ñu bëgg a dem ci yàlla yegg ci yàlla loolu waxi Sëñ Tuubaa ko njëkk a wax waaye kaay ma wax la de lii ma lay bëgg a wax Cheikh Ibra ko njëkk a wax moo tax mooy abori jàllu ñu ñu ñëpp ko njëkk a def moo ko njëkk wax moo ko njëkk a def première bi mooy Cheikh Ibra bi mu dikkee ci Sëñ Tuubaa te Sëñ Adama Gueye la dajal moo li tax ngay xam ne tàndali amut sénaado bi yalwaan boobu mu doon def loolo du bis boobu rek la ko mos a def kër gi dañ daan awantoo yalwaan bi tey si si sénaado ma dem takk fas wi wala mbaam ma dañ daan wuti lu lekk boo liggéey si mënumbe boo liggéey kaneen yaa ngi dégg kon yàgg na noo dem lu tax mosu noo dajeeg Cheikh Ibra nu bàyyi ba bis bi mu war a dajeeg Sëñ Tuubaa moo doog a dajeeg moom yaa ngi dégg mu ànd ak moom ñëw bi mu dikki xam nga lu mu wax Sëñ ko yegg ci yàlla mooy sama yitte baat boobu Cheikh Ibra ko njëkk wax Sëñ Tuubaa yegg ci yàlla mooy sama yitte parce que yegg ci yàlla li tax balance bi di rijaalun fil haqiqati bokkut ak rijaalun fi sariati mooy li ci sariat du yeggale ci yàlla loolu yi nan ko ñemee ndax Sëñ Tuubaa ko wax Sëñ Tuubaa dani wasaha anna awliya al waasiliin maa wasaloo ila ilahil haalamin bi kasaratil ahmaali kas salaati waxat ji baytillahi wa sakkaati dana ña yegg ci yàlla yeggewunu ci yàlla ci jëfi muy baril ay julli baril ay asaka baril ay aj màkka donte war na ko a def ñu ne ko lu ñu yegg ci yàlla mënu li hurmatin wa hulu himmati wa husnu xidmatin wa sukkuri nihmati xaamisuha nufuusa lil hasima fa man yarahiha yanal xanima sëñ Tuubaa nee na ñi yegg ci yàlla ñi ngi yegg ci yàlla wattu war may yàlla yi mooy ki yàlla li yàlla jox cër ci waa ji nga xam ko jox ko ko yaa dégg ñaareel bi mooy yitte ju kawe te mooy bil himma gi Sëriñ Tuubaa wootee yoon ku la gën a kawe yitte moo la gën a gaaw a yegg ñu ne ko ñetteel bi mooy lan mu ne sant xéewali yàlla yi ñeenteel bi mooy sax ci di liggéeyal yàlla juróomeel bi nag mooy dogu ci duma dëpp te àgguma Cheikh Ibra ko fendi bi mu dikkee dane ko yegg ci yàlla sama yitte Sëriñ Basiru ko nettali mi ngi ci Minanul Baaqil Xadiim fal da meel yegg ci yàlla sama yitte Cheikh Ibra ko njëkk a wax Sëriñ Tuubaa te loo njëkkee lu ne yaay aboob loola moo tax abou bakirin am mooy baa baayub jikko ji rafet ci lislaam yaa ngi dégg mu ni ko sëñ Tuubaa sax xam na ne wax ji rëy na mu natt ko nag na ko yàlla moom boo fekkoon nii gën naa gën gën naa la koo xam dooma fi fekk mooma waaye da koy natt Seex Ibra ni ko damaa topp tànk yàlla man ba mu socc yow man nag yàlla dong ma ñoraa ah. bu ma gisoon mu génn rek ma jàll Seex Ibra du gone da ngi dégg ku mën a gis tànk yàlla ak di wax ak yàlla ak yooyu xam nga léegi Sëriñ Tuubaa nangul ko njëbbalam ko ci gàttal daal yaa ngi dégg li tax mooy abori jàll ñooñu moo fa njëkk a jëf li ak taalibe di maye dégg nga Sëriñ Musaa Ka ni ba mu ñëwee Mbàkke Kajoor fekkoon na daara ja di sóor moo njëkk a yalwaani di woor ñu di ko ree di tex texi kon fekkoon na Sëriñ Tuubaa am njël ndax boroom kër la Seex Ibrahima ñëw jàngale nii sëñ bii waruñu koo bàyyi muy am njëlu boppam ak njëlam ab taalibe moo ko war a yanu mu yalwaane di indi ci kër gi di woor jooju bayraama caam laaj nañ ko ne ko ndax Cheikh daana woor mu ne man nag xuuma ñàkk kooram ndax lekk bëccëgam laa xamut Cheikh Ibra nee na lekk bëccëgam la xamut kooku du kii de yaa kon moo ñëw organiser kër sëñ bi mooy sëñ bi dañ taalibe bi moo war a yor léppam ndax al muridu man laa yem la koo say an wala yem la koo sayun sëñ Tuubaa ko bind waaye Cheikh ko jëf yaa ba mu ñëwee Mbàkke Bawal dégg nga sëñ Musaa Ka fekkoon na waa kër ga di togg a kawal Cheikh fa njëkk indi nee na di di di root di wal boole koog di liggéey di ko joxe nekk te liggéey di jox sëriñ bi mooy xidma googu Cheikh Ibrahima ko jàngale yaa ngi dégg yëg ne soxna sëriñ bi waree su koo bàyyi mooy bale ëtt bi yaa ngi dégg di bale mbedd meeka fobeere loola war a saa bàjjan am nekk Cheikh Ibrahima organisé loolu yaa ngi dégg kon li nga ciy xamee mooy aboori jàll ñooñu xanaa moo tax yegg ci yàlla Cheikh Ibrahima mooy aboori jàllullahi ja kon rijaalu saadixiina yi muy rijaal yi nga xam ne ñoom la ñuy wax rijaalun fil xaqiqati leeral naa la ko te nii ma la ko waxee xam nga ne Seex Ibra mooy ëboo rijaalu ñooñu ndax ñooñee ñëpp lan doon wut muy ngërëmul yàlla ko ko ci am da ngaa jaar ci yoon wi Seex Ibra rëdd xanaa kon kooku mooy ëboo ja mu des troisième bi kon waaw bariwul kon damay ñëw ki troisième bi ñu tëj jotaay bi ëboo rijaalu lay mu des kon rijaalun fil maarifati góor ña nga xam ni ñoom weesu nañ àjjana ak sawara waaye encore weesu nañ wut ngërëmul yàlla ñoom jëmmi yàlla lan bëgg waaw jëmmi yàlla ñoom luy jigéete ci yàlla weesu nañ ko ñoom jëmmi yàlla ji rek lañ fas yéenee sopp mu sopp leen loolu yi mi ci alxuraan de da ngay dem ci suuratu tawba aaya 109 alxuraan ne laa taqum fiihi abadan la masjidun xalaat xala taqwa min awali yawmi ahaqu an taquuma fiihi fiihi rijalun rijalun yuriduuna an yatataharu wallahu yuhibul mutahirin yaa ngi dégg yuhibuuna an yatataharu wallahu yuhibul mutahirin suñu borom foofu dañu ay góor ñi nii yoo xam ni ñoom danoo soppa laab ndax yëg nañ ni yàlla daa bëgg ko laab waaye firim xaqi xam yi ci ahlul xaarifoona ni ko fire du laab nii rek ki sobe ibn arabil atimi dani ay ahlul iradati wa sahyin fi tatahuri hani sunubi ñu ne ko lu tax mu ni wa anna ahlal iradati wa anna mahabbatillahi waajibatun li ahlil iradati ñooña mooy ñi sopp yàlla ñoom dañoo yëg sopp yàlla daa war ci ñoom daa cey teg ni walaw laa mahabbatullahi iyahum lamma ahabu atatahur nan dem ci tafsir xaarifana yi bu du woon ak cofeel gi yàlla ne da koo sopp ñi laab kon ñoom duñ sopp bëgg a laab daal na ñoom dañoo fas yéenee laabal seen xol ci bëgg lu dul yàlla ñoom dañoo fas yéenee doon ñi nga xam ne yuhibbuhum wa yuhibboonahu dañuy sopp yàlla rek te duñ ko bëggal dara yàlla sopp leen xam nga waa ji bëgg àjjana daa bëggal yàlla dara ndax àjjana yàllaa ko moom mu bëggal ko ko di jaar ci yoon wa ko ko may waa ji bëgg ngërëmul yàlla daa bëggal yàlla dara yëg ne ne yàllaa yor ngërëm mu bëgg jaar ci yoon wu ko ko may kii nag nee na maqaamaam daa toll ci bëgg la tur yàlla dara da koo bëgg rek daa sopp yàlla yàlla sopp ko yaa bëgg yàlla sopp ko ñooña nag ñooy ñoo ñooy rijaal yi ca kaw nag moom ñooña nag Cheikh Ibrahima seen aboo rijaal wa déedéet mooy aboo rijaalullahi kullihim yaa ngi dégg tax seen dee sama sang bi Serigne Saliou ne ko woon foo déggati ñuy waxtaane samaam Cheikh Ibrahima na mel ni ci yow mooy Serigne Touba. waaw ku dul Sëñ Tuubaa rek Cheikh Ibrahima lépp xoolal li ngay xamee ne mooy góor yàllam ñooñu abu rijaalullahi Cheikh Ibrahima bis bi ko Sëñ Tuubaa gërëm da ko woo woo Sëñ Masamba Diop Sam Sëñ Dame Abdourahmane yaa ngi dégg Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ ñoom lañ gërëmandoo Daaru Salaam Sëñ Tuubaa nag mooy lu kenn xamut taqdimu xaaliqil wara si lu wax da xaddama nii wala yakaana wax da ku xamul ne yàlla jiitoo rek xamoo ne Sëriñ Tuubaa jiitoo ñëpp ndax ci biir jiitu yàlla ga la dugg tafdilu sil xudrati wal iraada faddala nii waxu wali araada ku ñeme wut wax maag yàlla ku gën rek bul jéem a wax maag sin bi ku gën ndax sëñ baa nga ca gënu gën googa xoolal Sëriñ Tuubaa moo daan wax waxal li nga bëgg bis ni tey am nga ngërëmul yàlla am nga ngërëmul yonent bi am nga sama sa bëgg ñu defal la ko waaw waaw dama lay laaj ku toll ni Sëriñ na la man na lu ne dara ndax man ma ne yàlla feeñ ci moom mu ne la waxal sa bëgg boo amee leneen loo bëgg danga ko wax président bu la woowoon téye bi nga këyit ne la waxal li nga bëgg léegi ma def ko da nga bari loo wax ndax da lay wóor ne day signé rek mu sutti Cheikh Ibra xam nga lu mu wax keroog waxal li nga bëgg mu ne ko Mbàkke defal ma di la gën a bëgg <laughs> ku kon amul gëneen bëgg moom comme nekk moom Sëñ Tuubaa rek la bëgg wane woon na ko ci rëdd wa naan ko àjjana ak sa war a ñuruma yaa ma neex waaye xoolal fii dani ko Mbàkke di la gën a bëgg rek la bëgg kooku bu fekkoon laqaale na gëneenu bëgg da koy wax kon ndekete mooy abu rijaalullahi fii ci ca kaw ga fil maxrifati sin bi defal ko moo tax ko ku Sëñ mu sa wax waxal sa bëgg nga wax ko kookee ak bëggam su fekkee daray àddinaa ngi ci ni ngay gisee mu feen ci àddina loolaa la war a firil ne Cheikh Ibra bëggam nga wax Sëñ Tuubaa loola am na saa yu xëyee day gën a bëgg Sëñ Tuubaa moo tax Sëñ Tuubaa daan wax naan bëgg leen Ibra Faal ngir lim ma bëgg baa ngeen bëgg ko ngir li ma ko bëgg baa ngeen bëgg ko ngir bëgg maa bëgg Sëñ Tuubaa kon daa confirmé bëgg Ibra Faal confirmer ni Ibra Fall bëgg na ko confirmer ni bëgg Ibra Fall da koy tax a bëgg xanaa kon kooku mooy aboori jallu lay ci cofeel yaa ngi dégg waaw ku toll ni Cheikh Ibra Fall ku toll ni Sëñ Tuubaa téye baaraam bu tedd bii teg ko ci bëtu Sëñ Abdou Karim Touré ko Abdou Karim mu ne ko Mbàkke mu ne ko lu bët mën a tee gis Ibra raw na teg ko ca nopp ba nag Abdul Karim mu ne ko Mbàkke mu ko lu nopp mën a cee dégg Ibra Fall raw na waaw dama laa bëgg wax dara ki nga xam ni fu waay nekk moo la fa teg waa kim na raw na lu muy firi déggu déggu li ma wax de président nga xam ne moo fal pere préfet fal gouverneur ministre sàngam ak sàngam ku ne mu fal la fa nga ne président assemblée national mu fal ko ministre d'état yee conseiller gi ne mel mu fal leen nga xam ne ku ne fa nga ne moo la fa teg kooka kum ne yaa ëppale ak pal kon kooko jiitu ñëpp ah ok sëñ Tuubaa nag ku ne cër ba nga am moo la ko jox fa nga nekk moo la fa teg te dañuy Abdul Karim lu bët gis Ibra Faal raw na loo tey dégg kon mooy fam ne kenn newu fa ndax ku ne fa nga ne Bamba la fa teg te Bamba nee na fam teg Ibra Faal tegu fa kenn lii nangu ko mooy bëgg Sëñ Tuubaa nangu ko mooy nangul Sëñ Tuubaa te mooy sëb cër ci yoon wi moo tax aboo rijaalullahi looloo ko ko def kon mooy aboo rijaalullahi ci ñëpp di aboo rijaalullahi ci fépp ak ci lépp waaw moo tax Fall Damel foofu laa yemale waxtaan wi di ñaan yàlla na nu Sëñ Tuubaa dimbali ba nu sax ci sopp ko sax ci bëgg ko yàlla na Sëñ Tuubaa dimbilee ñu doon ay taalibeem yu mu nangul Euh, lépp loo xam ni gënalu Sëriñ Tuubaa ki suñ jëmm rek yàlla ko Sëriñ Tuubaa far ci nun lépp loo xam ne gënal na ko ci nun rek yàlla na ko ci def te saxal nu ci ci barkib Sëriñ Tuubaa waaxiru daxwaana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu